ci philosophe yi ci scientifique yi ci ñeneen ak ñeneen astronautes yi yeeg ñi nga ni ñoom ñooy xalaat kii day ñëw indi lii kii ñëw indi lee tey comme bu njëkk da ngay ñëw philosophe yi ñëw ne la yàlla amul euh, kee ñëw ne la yàlla am na kenn ku nekk na teg sa théorie après ñu avancé mais tey mënuñu ñëw euh, bëgg a jël tey benn débat boo xamante ni mun naa ne débat bu stérile la ñu bëgg politiser euh jël débat bobu bëgg a ci penc mi di ci wax chaque jour ay ñom tane ay profiteurs lan nek ci bëgg ci attaquer le gouvernement. et puis damay wax wax ju am solo bo xam tane ni dama bëgg Cheikh Oumar Diagne nga déglu ma bu baax li ma lay wax ni parce que li li nek derrière yépp du yow yaay cible bi cible bi moy le président Ousmane Sonko ak le président Diomaye moy cible bi yi bokuna ci ay points yo xamanteni ñom dañ ko nas pour jël li nga yi ak ñi fi parce que ñom si seen ay discours ak si seen ay wax à tout euh, tout le temps dañ doon diaboliser Sonko ak jomay ni ñom gëmuñu tarixa bo xolé yi nga xamanteni ñom ño di marche yi nga xamanteni ñom ño wax ñom moy yi maram daan jox moy naaf fekk yi daan nek ci télévision bi di wax naan ay ak di wat naan ay jomay gëmul dara bassirou ko mais dafa gedd ay waxu kasaw kasaw ay waxu xandang euh, xamna sa kandang ay wax yo ay waxu ñu doy di la ñooñu tay ñoom ñoo nekkat tay di organiser ay match pour mëna a pëtëxal li nga qui moy xolu sénégalais yi ci euh, euh, président jomay ak président Sonko Ben objectif la am

ñooñu ñu mën a victimiser wu mën a yàq deru li nga xamante ni moom mooy gouvernement Diomaye ak Sonko bi et je pense que ni Cheikh Oumar dama la koy ñaan ngir yàlla bu leen topp si seen jeu bi ñu nekkee bu leen topp si seen jeu bi ñu nekkee bu la nekkee di la saaga ndey bu la nekkee di la menacer de moor yow bàyyi leen ak yàlla xam ni yàlla moo leen ëpp doole xam ni yàlla moo xam ci ki nekk ci dëgg ak ki nekkul ci dëgg xam ni mission bi nga xamante ni yaa ngi koy dox suñu borom moo la siy jàppale man nag waxuma mission boo xamante ni dañuy jël mag ñi di leen doyadil wala jël tarixa bëgg fi teggi loolu mënul nekk ci tarixa la ñu bersewu ci tarixa la ñu juddoo ci tarixa la ñu yaroo ci ñu màggee te gëm naa ni la ñuy deewee dara mënuñu tàqali ak tarixa parce que tarixa lu mu néew néew yoon la bi nga xamante ni dana la yóbbu ci yàlla yoon la bi nga xamante ni dina defar ndaw ñi te ñu gis ay ndaw ñu bëri ñoo xamante ni tarixa da leen defar ba jamono jii nii ñu nekk ay nitu yàlla donc tey ñooñu kenn mënu leen jële ci liñ nekk te ci liñ nekk kenn mënu leen bonal parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko sanc danoo jaayante suñu boroom ba taxawal li nga xamante ni mooy lislaam donc euh, ci côté boobu man duma ci ànd ak kenn koo xamante ni dafay wax lu doy di tarixa mais ci beneen côté bi mooy dafa am ci ay kàddu li nga wax loo xamante ni dara mënu koo dindi doon diw doon setu diw wala doomu diw taxata doon diw bu doon doom doom doon setu diw ak doon euh, euh, kii euh, doomu diw setu diw bu fekkoon tax na doon diw mais kon tey yàlla du jël doom yan di yàlla nuux muy taawam yàlla boole ko ca ña la woon yàlla tey du wax ni dina lakk yaay ki nga xam te mooy sunu maam Ibrahima dina na dina lakk papam donc xam-xam du da nga koy jël di ko donnante ay sama papa sëriñ la sëriñ laa déedéet da ngay dem nga tarbiyu nga jàngi ji donc bu fekkee danga bëgg am xam-xam da ngay jaar fa sa baay jaaroon mooy nga dem daara nga tarbiyu nga jàngi mais munoo toog di feesal sa poos taalibe ñëw di la jox jàngoo wax jooju sax bëgguma si yegg ah ba pare nga bëgg taxaw ne sëriñ nga di arnaquer les taalibe te loolu dañu ko fi gis dafa bëri Sénégal dafa am benn góor bu ma wax wax ju am solo.

mooy problème mu Touba gii ñu nekk mu nekk ah ban problème la mu ne fii ci tuubaa bu nu sëriñ si fi nekk yamte ni ñoom ñi ngi fii si dëkk bi bu ñu yëgee ni ab dund dugg na fi ab ndimbal dund dugg na fi mu tolloog lu ci ay ma daal mun naa wax lu tolloog parce que chiffre bi mu wax jàpp ma ko comme lu tolloog euh, téeméer ci ay ceeb bu fi duggee mu ne ñi sant Mbàkke ak ñi sant Jaxate ak ñi sant Buso ñi sant Mbàkke ñi sant Jaxate ak ñi sant Buso ñooy ñëw ne sëñ bi ñun de dañoo sant Mbàkke sant Jaxate sant Buso te jox jomb nañoo yalwaan ceeb bii fi nekk comme te euh, si xayma téeméer la jox ñu euh, fukk ak juróom yi la ca des nga séddale ko taalibe yi ñu débrouillé wu sëñ Saliou moo ko wax lii nee na sëñ Saliou répété waat que nekk semaine ba ca topp su ma wootee nii nañu ñu génn ñu set setal dëkk bi ñu nettoyé dëkk bi ma wax ñu ma wax ma wax sëriñ si ñu génn mu ne lee mêmes sëriñ ñooy ñooy waxaat sëñ Saliou nekk ñu ne dañoo sant Mbacke sant Jaxate sant Bousso te kilifa lañ jomm nañu génn di liggéey wool taalibe yi wool taalibe yi ñu ñëw liggéey liggéey bi siñ si sàllu ne avec li naka lañuy ñuy mën a avancer Touba naka lañ mën a changer yàlla xam na ni góor gi moo ko wax wallahi lazim sëñ Saliou Mbacke moo ko wax lii jomb na di feneen sëñ Saliou Mbacke sëñ Saliou Mbacke moo ko wax lii pour wan ni dafa am ñoo xamante ni métier sax amuñu ko métier amuñu ko seen àdduna yëpp ñu ko bëgg accentuer seen àdduna yëpp ñu ko bëgg euh kii ci affaire de sérigne. profession ñu le maaraabu lool moy seen profession maaraabu tok muy dox tok muy dox et ces mêmes personnes ñom ñoo coloniser Sénégal depuis ay années depuis ay années ñom ñoo tok mais man amna na si am lool sax duma ko wax fi duma ko wax fi parce que technique wul sax ngay yëkkati kàddu yooyu di ko jëmale ci ñooñu mais fi nu jëm fi nu jëm fi nu jëm ak ñoom dana metti trop parce que préparé wuñu ko préparé wu seen bopp parce que man gëm naa ni li ma ne lu ci ñu bëri ci lañ loolu lañ nekk man Serigne Touba laa gëm laa yaakaar gëm ko mooy sama Serigne sama sama samay samay samay samay samay lignée maam yëpp jamono tek seigne touba ba jamono ji ay talib mourid lañ kep ku ci wacc liggéey touba lan la jenc mais man tay bu ma ne tay kan moy ce sëriñ mais sëriñ touba moy sama sëriñ amaatuma benen sëriñ sëriñ touba la yakar awma jokk si si mom ci mom la yakar donc ci set ci si cette set cette set si amul si kenn ko xamante tay dina taxaw di yëgal sama dërëm de lako jox suma ko def ma jël sama dërëm boobu noonu dimbali ko benn doomu euh, benn benn benn koo xam te ni loxoom jotul gannaawam dama ni nanu yeewu yeewu dafa jot nanu yeewu yeewu dafa jot te gis nga Sonko ak Jomaay dañuy déranger dañuy déranger ñii fi nekk boo gisee ay mbay peex ay Modou Bousso Dieng xawma ñooñu taxaw tey génn di wax ay ak ak ak euh, imam boobu jugee jugee jugee États-Unis ñëw taxaw di wax di mënaas te ñooñu démb ñoom ñoo doon gisee ak fay sàll mu leen di muy muy niinal seen seen seen seen ceeb ñoo doon gisee ak Marème Faye mu leen jox xaalis tey même gang boobu noonu ñu gang lañu gang toog muy dox rek la ñuy def toog muy dox di santage gouvernement bu ñu demee ba mënuñu chantage gouvernement dañ jéem xool naka lañu lay daanelee tey ñooñu ñooy taxaw.

wax ji modul dul neex Cheikh Omar len rek la koy sante di ko ñaan moy affaire de tarixa yi na ci génn na ci génn ba mu set wetch parce que actuellement tollootuñ fu ñuy nekk ci ay ci ay yorente ay tarikha yoy dañ ko dépasser man ba gasson waxé gasson bay Mbène man gasson bay sen man moo ma moo ki ci depuis may nekk xalé parce que temps xalé doon nañ tok di werante lu bari ci ay affaire de tarikha yi mais bima togué toogee déglu Gaston ne tarixa yi yëpp ay yoon lañu dëkk ba nu jëm fenn la maag yow ay noon lañ te pourtant li ñuy sàkku lenn la dàq leen tur yi ak jëm yi xippi bàyyi gëmm yi fexe leen fecc ëmb yi l'islam du charia cheikh mu rabbi du sëriñ tariyaax alib du galeria donte lépp meew la est-ce que jant bi déew la lu waay di bay démb daa lu waay di dundee démb daa fekk mu bay ko démb àdduna kumpa neen lu ëmb image dégg lu wax te xëy ay yoon lañ waaye dëkk ba nu jëm fenn la man ak yow ay noon lañ te pourtant li ñuy sàkku leen la man ak yow ay noon lan muy tarixa bi ak ibaadu bi mun nañ nekk ay noon mais la ñuy sàkku yàlla la ñuy sàkku man ak yow ay noonu lañ pourtant li ñuy sàkku leen la dàq leen tur yeeg jëmm yi tur yeeg jëmm rek ñoom ñoo fi nekk tur yi ak jëmm yi tur yi eh, kii murid la tiyaan la kii kii kii kii kii ibaadu la dàq leen tur yeeg jëmm yi xippi bàyyi gëmm yi fexe leen ci ëmb yi

aduna bi léegi mi ngi intelligence artificielle nak la ñu préparer génération bi di ñëw si intelligence artificielle bi ñu former leen ci yobu ay ndaw à l'extérieur ñu yem jangi xam-xam bi bu ñu Sénégal dispensé ko xol euh, science astronomie si yoy la wara nek di développer mu wara nek débat de tous les jours tous les jours kii bu indee lii teg kee indi lay teg mais ay débat politique ay débat génn ci ay débat góor jigéen jógewaat ci ay débat wu Aziz Dabala ñëwaat ci ay débat au fait dëkk boo xamante ni nii lay def ci ay futilités yoo xamante ni kenn Sénégal damay sax naan est-ce que dëkk la dama naan Sénégal sax est-ce que réew la quoi est que réew la est-ce que réew la nekk réew woo xamante ni da nga retard retard retard kenn xamul ñaata année de siècle nga retard pendant ce temps adduna bi yëpp a ngi dox adduna bi yëpp a ngi dox ñëpp di avancer mais ñu tëdd nelaw werante politiciens yaakaar ni ñoom moom Sénégal di orienté débat bi fu mu leen neexee fu leen neex la ñuy orienter débat bi lu leen fu ñu bëgg xooloo rek foofu la ñuy xool ñun askan wi nga xamante ne amuñu fulla amuñu fayda di leen topp rek fu ñu xooloo ñu xool fa lu ñu def loo ñu def fa topp ay journalistes yi nga xamante ni amuñu benn formation amuñu benn njëriñ daanaka ay wax ay ay waxta lañ li ñuy liggéey sax xamuñu ñu topp leen rek ñu ñuy orienté ci ci ci affaire de politique politicien politicien bi tok bon chaque fois dañu war politique chaque fois élection da am parce que loolu moo koy dundal loolooy ninal ceebam parce que ay politiciens lañ politique rek lañuy dundé amuñu leneen lolu politique ñi sëriñ ay sëriñ quest marabu sëriñ kese lañuy dundé dundee profession marabu seen profession politicien union ñoo ñoo Sénégal loolu tax ñu tardé loolu tax ñu tardé mais adduna bi ngi avancé

message bu ma bëggoon jàllale la euh, incha allah Cheikh Omar euh, je ferai tout pour voir le téléphone ñu waxtaan. parce que quand je la jàppee euh, ñëwoon naa pour seet si la permis de visite à nako ko ñëw prison si bi mais il dafa dogal jour boobu Abdou Karim Gueye gis Abdou Karim Gueye laa gis jour boobu nekkuloon si jour visite loolu tax Mais mais y a le et je t'encourage yoon metti la yoon bu gudd la parce que dañ ko sekk ay bandi ay mafia ay gang yoo xam te ni du ñu bàyyi mais jàppal ni am nga suñu soutien am nga man boo xaw ma kan mais am nga sama soutien jaajëf.